wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida borom Daaru Muxti day mooy doomi Maam Mor Anta Sali di rakki si Ahmad Bamba radiyallahu anhu ji nga xam ne sëriñ bi da daa woowee loxol ndeyjooram bind na ko ak xasida gu ñëpp gis nañ ci Majmuha Abdul Ahad wax ko ne ko ida ataaka adudi kitaabi maanaam wan ko ne ko yow yaay sama përëgum ndeyjoor wax jooju daa amoon werante bañ laaj ko suñ bi ci wax mu ne leen addu di ci maanaam ki may waxal ko xool daana ko kon mooy përëgum ndeyjooru borom Sëñ Tuubaa ba Sëñ itam wax ne moom mosula juyoog man ca ba mu nekkee ndaw ba bi mu nekkee mag lam yu xaalif nii fii sagarihi wala fii kibarihi kookee mooy borom daal moo te nga xam ne amul lenn lu mu juyoo Sëriñ lu ne na ko sëñ bi bëggee rek noo ne la cay taxawe na nga ko ko diggalee noo ne la koy defee muy koo xam ne mu ngi feeñ jamono ci weeru gàmmu ci fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci atum 1283 ci hijriya gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam tolloog euh, août 1866 ci li ma jàpp man am na ñu wax 1865 am ñu wax 1862 waaye loolu natt lay waaye buñ ko seetloo ci jumtukaay yu yees yi daa mel ne mille huit cent gën a lay gën a dëppoon ndax bu njëkk mag ñoo xam nga dañ daa natt rek ci xew-xew yi amoon léegi dat yi nag boo ko xoolee nag ci jumtukaay yu yees yi mën naa indi dat ba juste mi ngoog mi ngi ganee àdduna dëkk bu ñu wax Poroxaan fële ca Saloum ba fa Mamadou Anta Sali nekkee jamono Maba Jaxu comme ni ngeen ko xamee te dajale woon fa sëriñ ci dëkk bi yëpp ak jullit ñi ak rawatina borom xam-xam yi jamono yooyu xam nga ca soxna maam Fatisa génne àdduna dëkk boobee waaye boroom daal moxti itam foofee la gane muy poroxaan waaye yàlla dogal bi muy gane dafa fekk boobu xeex doxoon diggante euh, mabba jëxu ak force euh, colonialiste yi fi nekkoon muy xeex bu siiw boobu ñu tuddee maarikatu ba paate dagaan xeexu Paate Badiane ci dëkk bi ñuy wax Paoskoto foofu la amoon xeex bi nag te ginnaaw Maba Diakhou maanaam Mamadou Abdou Sali moom la nekkaloon foofa xeex bi situation xeex boobu moo tax ñu xoboo Poroxaan dem Njaabakunda foofee lañ ko joxe aw tur Njaabakunda foofee lañ ko tudde boroom dal mot nag waajuram see suñ Mamadou Abdou Sali mi ko tudde Cerno eh, Ibrahim Kan Cerno Ibrahim fii ñu ko gën a xamee ci ak cheikh Ibrahima Tukroori cheikh Mahmoud Bachir tudd na ko wax ne cheikh Mahmoud Bachir ci minal baax xadim wax na ne moo yeesalal sëñ Mamour Anta di wëtu xaadir waaye cheikh Ibrahima rek al Fuuti yéen ñoo ak Tukroori sëñ Mat lañu di tudd na ko ci Nubzal ta itam waaye ñoom noonu rek lañ wax waaye sama waajur cheikh Mouhamadou Fada ci téere mi ñu tuddee si xayaat cheikh Ibrahima Fati moo wax ne moom dafa xam ay sëtam wax ne moom sëriñu tukkuroo la boo xam ne mi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax maqaam nga xam ne fi ne nii mi ngi ci suufus Mauritanie dëkk boobee fa la fa la fa la dëkkoon doonoon borom xam bu mag doonoon nit yàlla nag cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nekk na ci xisa boo xam ne wane nit yàlla la dafa mos a ñëw seet si sëñ Tuubaa seet si Mamour Alisali fekk booba sëriñ bi boobee lay lay nekk ci njëlbeen la néegam nag nekk ci bunt bi Mamour Alisali di ko gunge ba ci néeg sëñ bi ñu xool fekk sëñ bu sëñ Jóob moo nett li moo ko moo nett li loolu waaye ne boobu nee na maa ngi ci biir néeg bi waaye ñu jàpp ne damaa génn ndax dañoo xool buntu mu tëjee moom loolu sëñ war na ko moom day dem ci tool waaye nag dama bëgg sax fii ne fii sama doomu fi xam ne ju ma am yaakaar la dama bëgg nga ñaanalal ma ko waaw wax ci wax ko ci moom wax yu rëy yoo xam ne sëñ bi nee na keroog laa dégg Mamadou Anta wax ci loolu ci man lu mel noonu ginnaaw moom it ëllëg ak comme tolloon moo koy sàkk tuam ay ñaan ak ngir bëgg mu gën a ñaanal si ñu loolu wane na ni kilifa la woon ñu fonkoon itam moo yeesalal Mahmoud Ansari werdu ci werdu xaadir kooku noonu lañ ko tuddee moom nag yàlla dafa dogal buur bu ñu wax Abdul Bukar kan moo ko faat moom Cheikh Ibrahima kan moomu Abdul Bukar kan maanaam ci jàkka ji la ko faate loolu eh, man am na ci loo xam ne ci Mouhamed Lamine Diouf wax na ko ci Nuzul woon na moom eh, kooku doom ji wax Ousmane Kane moom it moo am doom ji ñu wax Alxaaji Mouhamed Ousmane Kane moom nag moom la am ay doom doom ji jigéen ju xamante woon sama waa ji ñenn ñi dañuy wax ne Ibrahim Saw la tudd waaye a wér Ibrahim Kane Thierno Ibrahim Kane borom dal matu bi mu feñe yu bari xew na ci musa Ka nekul na ci ne manam euh sëriñ bi ci bopam fekkon na bi borom dal matu feeñ fekk na muy jàng alquran ba ak ji ba ag ci wa akhi harun huwa afsaxu minni lisanan lisaanan fa arsilhu fa arsilhu maay riday yu saddiq ni in yaa xaafu ay yukaddibun wax ne doon jàng alxuraan ba tollu foofa ñu ñu wax ko ne ko soxna maam Faati am na gan dégg nga loolu tegtal la ndax foofu naa Moussa fi lay ñaane suñ borom may ko Haaruna mbokkam nekkul yónnante ni moom loolu sëñ Moussa Ka wax na ko wax na itam ni ca la sëñ bi daal di téere boo xam ne as-sab'ul munjiyaat ay aayal yu nekk ci alxuraan yi ñu daal ba léegi mu ngi ci téere yi wax euh, maanaam maanaam njëriñu alxuraan yi ay secret yi boo demee leen nga gis sabal mun jaati ko yooyu sëñ bi da ko daal di bindal jox ko soxna soxna moo fara jënde mu takkal ko wax na itam am na ay bis goo xam ne ñëw di wër néeg bi di jàng alxuraan moom sëñ bi kon loolu lépp day wane ne maanaam bi mu feeñee rek ndax sëñ Mamadou Sall dañu dañoo wax ne da ko waxoon ne ko bu feeñee moo lay jàppale ci liggéey bi moo tax ba mu feeñee sëñ ko moo tax ba mu moom daal feeñ rek sëñ Mamadou Anta Sall jébbal ko sëñ Tuubaa mu nekk ci loxoom sëñ Tuubaa koy jàngal alxuraan ak xam-xam wax nañ ne am na sëriñ bu ñuy wax sëriñ Ñang yàlla na ko mel na affaire moom Maam Cheikh Anta waaye nag tere leen sëñ Mamadou Anta Sall jëri jébbal maanaam jébbal ko sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko moo tëral ba mu mokkal alxuraan dégg nga ginnaaw mu taamu di ko jàngal xam-xam ba jàngal ko mu baadi yow loolu yëpp soqat tasawuf ak yëpp ba wax na ne ñaari at la génn loxoom menn at mi de ko demoon ci alqaadi ma jaxate kala doon fa jàng lu aju ci euh, naxwu euh, naxwu ak am na at moo xam ne yabal na ko ci al euh, ki ñuy wax Mor Birama Jaxate kala Mor Birama Jaxate sëñ moor Birama Jaxate doonoon borom xam bu ñu xam dëkkoon ca Jaxate fa ca wetu Louga moom it dem na fa ba mu fay demee yóbbaale na waay yu rafet xëy na loolu buñ ci gën a gudd waaye li ma bëgg a wax mooy jël benn googu sëñ bi da ko taxawoon sëñ misaal da ko misaal ci wax ne buy dem mu yor sottale ak garam ba ak téere ba ak daaja di saf laram ba maanaam fu mu mës a jëm rek moom la boo seetloo sëñ Basiir bi ñu nett li li tax sëñ bi taalif xaalu safihun nee boobu dañoo ànd piir te suñ Demba Fall yaakaar na ko ñox sëñ Demba Fall sëñ Mamadou Anta Sali gane ko gane bi boobu sëñ Mamadou Anta Sali moo doon jàngal sëriñ bi sëriñ bi di jàngal sëñ borom Darou Mouhty sëñ bi nag boobu moom borom Darou Mouhty dañoo dem ba ci ba génn dëkk bi dal foofu ci genn garab nekk fa sëñ bi dawul bokk ni suñ ne waaye bu bëccëgee day ànd ak borom Darou Mouhty ñëw jàng si ci sëñ Mamadou am sali ci ci ci ci dëkk bi benn bis nag ñu jógee ci àll bay ñëw romb ay nit ñu leen di jëw am ku wax koo xam ne mbokkum sëñ bi ne ko kii xanaa mooy seen mbokk mu moom nga xam ne xel mi neexul kooku ne ko waaw mu des ñoom ñu reetaan sëñ bam delloo sëñ basir nee borom daara ko ko bam la la bind gi wax safihun عنهم بصري ورغبة عن ذوي في البشر قالوا سفيه لتفويضي إلى ملكي أمري عن الكون في صف وفي قبر أنا بدي خير مرة بسم الله وعيقبني الخسر قالوا سفيه لحب مالكي أه mi ngoog muy muy dem ba xasida ga àgg ci ci ko sëñ bo sëñ booy loolu day wax kon kon gis nga fu ma saa jëm moom gis nga bi ñuy wuti ñetti dërëm yooyu itam ndax dafa am naaru gànnaar boo fu ma sa ñëw suñ tuwaa daa bëggoon ni téere ci njëlbeenam téere da ko daa jaral lu ne bu ma saa gisub téere li yitte mooy jot ñu gisaat téere ay téere yu naar bi yor mu Mouhamed lañ jël danga nekk na ko ci almubiyal mubaraka sëñ sëñ Moussa Ka itam na ko ci marché borom daal mat bi nee téere yooyu wax na ci ñaari téere benn ba mooy fatxun ak faal sarfa daamitra faal beneen bi lay fàtte rawdul faayiq la beneen bi mi day wax mbirum euh, maanaam dëddu ak luy tooyal xol ci la ci la nag bi téere yi ñëwee nag suñ bi gis ko da ko leb ci naar bi mu ko lebee yàlla dogal dem ba naar bi war a wàññi ko te sëñ bi amul mu ko fayee waaye sëñ bi daal di daal di ànd ak borom daal mooti ak sëñ Moussa Mbaye Diop Samb sëñ Moussa nee na wër nañ Kajoor ak Njàmbur ak Bawol ñëpp di wër ñett dërëm mu tëleen del see pataat nit dañ leen doon reetaan sëñ Moussa nee na digloolu ma wax la bis ba Bamba ak Cerno del see pataat nit ñi di ree ngir day nu maam Cerno naa Cheikh Bamba ñoo nu reetaan naa du nu fay bor danaa ko yelwaan kon day wane ne loolu ma ci bëgg indi rek mooy ñoom fu fu mës a jëm ci ngir benam day taqoog moom xam nga suñ tubaab daa xam ne yar taqoo la laaj te borom daal moo itam gis ne ba mu dem ci askamara itam ginnaaw suñ suñ suñ mambaran sali moom la àndal ak suñ daam Abdourahmane Lo kon borom daal moo dafa feeñ rek dugg ci loxo sëriñ bi dinañ wax lu bari itam lu am solo loo xam ne mat na bàyyi xel mooy ba muy ànd ak sëriñ bi booba yitteem du woon seex du woon dara àdduna moom kii day magam di kilifaam bàyyam jébbal ko ko itam mu def sëriñam bu bu murid gi amutoon itam dara xewut itam daa war a ànd ak moom gis nga kenn ci waykat yi dëkk dëkk ci dëkk bi dafa wax ne ngir ngir booba kat kenn xamagul yoonu murid ndax amagul jébbalu sax moo xewagul waaw daam rek ak gorom ko sax noonu la ko waxee mooy wane ne ba muy ànd moom booba dëkku ci woon dara doo ànd ak moom ngir yàlla di ko liggéey ngir yàlla kër guñ masa dem gis nga bi ñëwee fii Mbàkke Kajoor Mamour Alisane la ko amoon maanaam sëñ Tuubaa moom fa mu dëkke woon borom Daaru Muxti keroog la jëkk laa sëñ Moussa da wax ne Mbàkke Kajoor la jëkk laa aw sàkket di sàkketal Seex Bàmba maanaam foofu la jëkk tàmm moo jiite woon liggéey ba daa sàkk ndax saa liggéeyam ànd ak seen bay liggéey bu ne mu jiite ko nekk ca biir liggéey ba nag di liggéey te loolu da ko daa def ngir yàlla xamuñu woon ne mbir yi fii dee mujj dégg nga moo tax yàlla rek moo taxoon ñuy def sëriñ bu digganteeg maam Cerno Birahim ak Seex Ahmadu Bamba radiyallaahu mën naa ne ñoom leen boole dafa bari lool mu dee seen diggante ndax ak bokk boole na leen ah, ñu bokk wenn wajur wu góor bokk mën naa ne sax wenn wajur wu jigéen ndax ñu seen ñaari wajur yi ñoo bokk seen maam Ahmadu Soxna Buso waaye ginnaaw loolu itam bokk na ci li ko li ko booleeg moom mooy borom daal moxti Sëriñ Tuubaa doon sëriñam mu jébbalu ci moom jébbal ko boppam Mamour Anta Sali kooku jébbaloon waaye keroog bi Mamour Anta Sali génne àdduna gis na sëñ Moussa wax ne keroog la yeesalaat njébbal ga maanaam keroog daa yeesalaat jébbalu ci sëñ bi jébbal ko boom boobu sëñ yoon wi moo tax bu du wootee yoon wi ñi ñëw di jébbalu doo doo ko ci lim ndax mu nekk ci biir sëñ bi waaye itam am na leen loolu boole mooy borom daal moo fi ak ak cofeel da ko boole na sëñ Tuubaa maanaam mu بگو هم نگوگر لگو دگر و همیشه وصفه و يقتفي إثره مساء وصبحا قائلا هاك حيث يسمع هاتي حمل الشيخ إبراهيم لن ثقيلا من فشال الخديم خير الثقات معناها أنا إبراهيم فاتي مش معناها أنا إبراهيم yilimaan la joo xam ni dafa nuróog mbokkam moomee di xaws dafa nuróog mbokkam moom yi di si am bambara daal melo ak ci jëmm boole ci wax ni itam yitteem mooy xeeñtu Sëriñ Tuubaa rek ci suba ak ngoon mbir mu ne na ko sëriñ bi doxale mu koy doxale noonu loolu moo indi sëriñ bi wax ci moom ne lam yu xaalif ni fii sabar yi wala mu ne na ko sëriñ bi defe mu digle ko noonu noonu la koy defee jikkoy sëriñ bi itam mu jël ci nee na am ci cër bu doy sëkk bu ko defee nii nga ko waxee itam sëriñ bi wóolu woon ko itam sëriñ bi da ko wóolu bu baax joxoon ko maanaam lu bari loo xam da koo dénk bokk na ci li gën a fës mooy bi ñuy dem ci géej gi mu dénk ko yoon wi ak njaboot yëpp loolu yi mën nañ ne Cheikh Mouhamadul Bachir mm, ibnu Cheikh Ahmadou Bamba si mu naan baaxal xadim moo ko seere dafa wax ne قام الشيخ إبراهيم بما أوصاه به من التعليم وقد أتقن فنون العلم درسا وفهما وسمى بهم على المنهج الذي رسمه المربي المكرم المكرم ولم يدن عنه كقيام مستخلفه فبهذا استدام السير على ما خطه شيخنا وتجددت الطريقة وكثر المريدون dafa xam ne borom daal moo ki sëñ am na feneen fu mu njëkk wax sax ne sëñ bi da ko wax ne ko ah, njaboot gaa ngi noonu ba muy dem ci géej gi am na foo xam ne sëñ bi dama ko teewlu waaye am na fu wax ne sëñ bi moom loo xam ne ko wax ne astawdi'ukum la astawdi'ukum allah alladi la tadi'u wadaa'uhu alayka bil ilmi wa taalim wal hirs wa ilayka al ahlu wal iyal sëñ bi moo xam ne ci mel baaxal nee na sëñ dana ko njaboot gaa ngi noonu mi ngi say loxo maa ngi leen dénk yàlla mi nga xam ne nag luñ ko dénk du sànku maa ngi leen dénk itam nga sax ci jàng ak jàngale ak di bay nag wala ci moo tax mbay boo gisee borom daru fonkoon ko loolu loolu ko sababoon sëñ bi si wax na nag loolu ko sëñ bi dénkoon hmm, da ko sàmm fekk na muy dee ci bu dee ci wàllu njàng dafa xam ne fekk na moom mu jàngoon ñu war a jàng lépp fekk fànni xam-xam yépp dégg ko boole ci moo tax mu daa jàng xam-xam suñ jaam boo xamante loolu nag di jàngale alquran doom daaru nag gàddu daanaka jëm liggéey bi yëpp rek lépp lu ñu war a def kër gi ak ci war a dem rek mu jàpp ne moom lu war dégg nga taxaw maanaam daara yëpp dégg nga ndax suñ mbàkk bu so itam moom war na ko di jàngale xam-xam waaye lépp moom moo jiite woon liggéey bi suñ bi teewoon ko ci loxoom mu jàpp lépp itam moo ci suñ dootam la jàpp ba mu leen daa jàppale ci daara yooyu tom kattanam suñ bisul teg ci ne yoon wi leen suñ bi rëddal mosu koo wax si moom waaw al manhaj alladi rasamahu almurabbi lam yaman anhu noonu la ko wax moom la cheikh wala yaman anhu wax na naka naka suñ ci waa jaar rek noonu la ci jaare ka xiyaam mustaxlifi baa bi am solo suñ bisul waxoo wax ne moo tax fa bi hada istadaama sayru ala ma xattahu cheikhuna maanaam loolu moo tax dox bi nako señ bi rëdde won dañ nam bëggon mu jaar ci dara jëngu ci maanaam yoon señ bi dem na waaye dara taxawu ci dara delu ci ginaaw lepp da gëna dox day jàppe sax ne wata jaddadat ak tariqa maanaam yoon wi dafa gën a yeesaat wa kasural muriduna murid yi gën a bari dégg nga sëñ bi bi fi jógee ñi nga xam ne mokkaluñu alxuraan ñi ñee fekk nañu mokkal ñi doon jàng xam-xam fekk nañu ñu sottal noonu la ko sëñ sëñ sëñ maanaam sëñ Moussa ka waxee أمنا النار بمسيح عبد محمد عبد العلي برم نفحات المشكية وعنا رب المريدين وأقرأ البني النجاب الأزكية تلك السنين معنا يعني مريد لن تربية شيء أنا مرقو سنبا ترلو النب من جانا لجانا لما تجيتو اللي جاي تنجا أكثر من جب أجي جلس أكثر ديال لا أجي جيت من نوم كلا ده كده مم أقبل كوك جاك جيت أنا لات ما نم جلو سن بينك تيجي جيت ده كده يلا إلها برم دارم دلنا وح نيوارا ده لدونه نفسي بوسير لو li ko sëñ bi dénkoon mën moto suñ murtala ci almuridiya tënk na ko juróomi point waaye la ci mooy jàkka ji sëñ bi moo doon jiite moom fu moo jiite jàkka ji moom du du fi jógee itam borom dara moo doon jiite jàkka ji borom dara moo dëkk yi ñu ko sañcee jàkka ji moo koy jiite moo ko bàyyi kenn naka lay ramadaan yi sax moo ko daa jiite waaye du ne ba mujj gi la ko mën a wut kuy jiital góor ñi ak kuy jiital jigéen ñi fa dem ñu wax mawlud kon noonu la ci taxawee رب المريدين وأقرأ البنين أن النذباء الأشقياء تلك سنين نولي لشيخ محمد عبد الله علوي وحكي كي كي نزهد النديم مويلم لم واي سري فال اك لم جرا فال سري فال واي كون لولو مو دخون ديغنتي سري سين دي تام سان نكو باخ سي عبد القدوس مي دي ثقه بو خامني man de xawma ko gën a ragal yàlla ndax dama ko dund dama ko fekke dafa ma Serigne Touba bi mu wax na mu ci kaset yi yi ñuy dégg te Serigne Touba bi mu ñibbisee ba accident ru ma naan day seet bagage yam ko bàyyi woon ba gis deseeti wa deseeti warga yaa yooyu yëpp lépp na mu ko bàyyi woon noonu la ko ba mu takk woon tegal ko dam ko xool ne ndaa mujj yéemu ne ko ah Thierno day diine xaw ma ak maandu la xaw ma am la jàpp wax ko ne ko lii de yow boo demoon man ma des xaw ma ne dinaa ko sàmme ni ko sàmme yokkaru man dinaa ko mën a sàmme noonu loolu suñ tubaab ku woyof la woon woyofal boobu la woon ñi ñi koy waxee ne am na ci yoo xam ne ah, maanaam defu na <laughs> ah, na am na naar bu ko ma a wax ne ko yow de soo tedd bi dañ laa bëgg ba dañuy wax sax ne yàlla nga mu ne ko yàlla moo leen wan moo leen nëbb sama sikk loolu rek la ko tontu loolu suñ tubaab moo tax baat jii nii day nuru la rek waaye réew ci sëñ bi dañ la wax ne xaw ma woon maanaam yow boo demoon ma xaw ma nii nga ko sànn xaw ma dinaa ko mën a sànn noonu sax am déet ne ko nag xaw ma lii am loo jàpp la ak wàll ak maandu loolu kon suñu tubaab santal na ko boom eh, noonu it la ko jàppoon buñ seetloo itam borom dal moo te wax naa la li ko boole sëriñ bi mooy moom dafa bëggal boom suñu tubaab yëpp yi ko boole yi ñu wax yëpp wér na waaye dafa bëgg suñu tubaab bëgg koo xam ne bu wér la dinaa ci joxe firnde loo xam ni xëy na wax nañ ko ba tàyyi waaye lu am solo lu mat bàyyi xel la mooy keroog bi suñ bi jógee fii te borom daru moo ti jógee Mbàkke Bari dem Mbàkke Bawol xam nga mbir ma xaw a mu jàll ci ginnaaw fa mu jàll nag foofu xam nga feebar bu bari dafa feebar bu métti dafa dal ci njaboot boo xam ni jur na yu bari faatu am nañu man juróom-ñett ci mag ñi am nañu faatu ci doon noddal borom dara moo ti ah moom it faatu daam ngi dégg waaye boobu dégg ñu borom dara wax dara bi mu ba feebar bi tàmbalee dugg ci biir njabootu Sëñ Tuubaa gi nag Cheikh Mouhamadou yee daal di jël ci daal di noppalu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi jël ci ak Cheikh Mouhamadou Bara te lañ gis nag sëñ Moussa nee na keroog la Thierno moo fa jooy ci dunya maanaam Thierno dawul koy jooy gis nga sëñ Pata Dieng moom i way way ñu ko way dafay misaal wax ne dara du yóbbu aw fitam dara du tax mu ras bëtam waaw wéetaay du wàññi ak ngëmam maam Thierno jënd la jaaxle haddan suna ku wana ina ko dal musu ko ay na liko ay ron ko dem dem mo ngir mo tuwa bu gi tam di ci la gën tu ay ron ko ñaan sun borom ne ko dama lay ñaan sun jabaru sin tuwa gi dal bu ci kenn na lay jugeti yalla nak ma jël man ni jël sama doom yi jël sama wayju wu jël ci mam fatisha te bayyi len ci ñom lool nak ak bëgg fofu lay am ku leen maanaam ndax yii nun noo ko fekke xéwal yéeg yi ñu xëccoon yi kenn ku ne bëgg gën a jege sa morom loolu nun noo ko fekkee waaye booba xew bu doon maanaam suñ tubaab ku kenn jëpp doon sax nag dana del si moom mu am ixlaas boobu ak sellal googu te yàlla a tax lu mat di bàyyi xel la période yooyu suñ tubaab tubaab yi mosuñu yóbbu kenn mu des te si won ne na fi jabar bi mu yor leen lu ne nag jànkoonte na ko ci gis na foofee ci daru manaan si ginnaaw boobu suñ bi ne ko na na na sanc daru manaan ba mu fa sancee di bay foofee ci toolu fett la ay dongaam xeex ak ay ay sàmm tubaab yi di leen àtte ne ko yaa tooñ te moom at lañu kalaame kenn te jëwriñam yi te bu bari moom ñu génn ko suus boobu dafa génn xam nga di wër ba suñ bi ñëw fekk ko ci suusu rek. xëy na dem xabbaan ak suñu xoor ak kër kër maanaam tër ak yooyu maanaam foofu boobu rafetal jamono ci biir boobu la ñu ko foofu ñu gën a gis loolu lépp mu daj ko ngir rek maanaam sàmm sàmm si sàmm si waa njabootam gi moo tax suñ Moussa Ka dafa da ko gàttal ci ñaari biir yu am solo yoo xam ne daa ko wax lu bari dafa wax ne boobee ba tey maam Thierno Ibrahima Faty mosula tàggoog Bamba fil aadaati te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Cerno Saadi faj ko ah ak bëgg foofu la yem mooy lu mu lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko maanaam lu mu amul dana lijjanti maanaam comme noonu ma waxoon danaa ko yarwaan te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Cerno Saadi faj ko kon mag ñooñu mat nañu waxtaane mat nañu leen delloo njukkal itam léegi rek dama am ku ma laaj koo xam ne day liggéey ci benn rajo ak journaliste yu sowul ma dara ne ma waxtaan gi ñu waxtaane mag ñi nii mbaa du suul bi nga xam ne moo leen meññ muy sëñ Tuubaa muy ker bi ma ne leen nag man sawaat bi laa gis maanaam mu di sëñ Tuubaa leer sëñ Tuubaa da jant boo xam ne daa muur biddi yi nga xam ne mooy mag ñi mu àndaloon fi ne tey boo gisee réew mi buñ tudd sëñ Tuubaa tudd ñi nga xam ne tey ci yeneen tarixa lañ ne nga xam ne moom seen sëriñ lañ waroon tuddaloo sëñ bu fekkee war nañ ko tudd maanaam ñii ñi leen tudd buñ tuddee suñu baax ñu bari ci mëri dañuy wax ko tudd tudd keneen fekk ñi ñuy tudd buñ leen tuddee dañoo waroon tudd ay borom daru ñi ak yeneen ak yeneen ndax ñii dañoo nekk ci tarixa seen sëriñ borom tarixa wa suñ tuwaa day borom tarixa dégg nga dañ waroon buñ tuddee buñ ko tuddee doog jàttek si Abdu Xaadir Jilaani si Amadou Sazali ak Cheikh Abdul Hasan Sazali ak Cheikh Amadou Tidiane waaye li koy ni mooy nun mun dañu kopp jën bi rek xamu lu fi ne xamuñu leen waxtaan loolu leen jàpp ne ñu ko waxee duñ kennal sëñ bi yooyu ñuy wax nan waana ñi nga xam dañuy wax tan dañuy kennal sëñ bi daanaka loolu njuumte la yoo xam ne gis naa ne mat li ngeen def ne am solo génne dundu mag ñi di ko waxtaane dañ xamaat ne ay góor yàlla ñoo xam dañoo jaay seen àdduna ak seen temps ak seen lépp ngir wut yàlla yàlla rek leen ñorom ba suñ cee dàkk dara bu dee boroom daal moo te ak digganteem ak jaamu yàlla loolu itam tam bu am solo la bu matti waxtaane la borom daal moo te sëriñ Tuubaa ko yar te lam ko digaloon mooy nga fonk jaamu yàlla gis nañ ci lettre yi nga xam ne moom la ko bind am na ñaari lettre yoo xam ne ñu ngi fi lettre yëpp ngi am na ci yoo xam ne bool nañ ko ci xayaat Cheikh Ibrahima Fati boobu muul ko waaye sëñ bi da koo xam te ñël ben ne ko na ngay wétali ko yàlla na ngay wétali yàlla ndax boo wétali ko yàlla de yàlla dana la doy wëlis nit ñi su fekkee da nga wétli ko nit ñi nag nit ñi dañuy dox kiiraay dañuy def baaraas sa diggante sa borom wax ju am solo man ta'annasa bin naasi xajabahu naasu an rabbi naas wa man ta'annasa bi rabbi naas aghnaahu llahu an naas lettre yi ma wax ak ndénkaan yi xam nga suñ bi nekk liggéey bi mboolem lettre bu ma sa bind ci da koy dawal ci borom daaru borom daaru nag suñ la ko daa wax nga fexe ba mbir yëpp dëkk nga leen dawut ay xos di ko war fu murit nañuy war ndab mooy yëpp moo tax bari ci copie lettre yi nekk fi mu jaar fii waaye mbir yëpp la ko fi mbiree tamit am na ci yoo xam ne bi si Abdoulaye di defal marché bi ci la ko si Abdou Khoudous loolu ne léegi dugal ko si bi ñuy def majmaa boog laa bëgg wax ni ko noonu itam suñ tubaab boo xam ne ko man li ilaahi tawajjahtu taraax bi nafsihi fi kulli shay'in wa araax wa man ila siwaahu maala taiba bi nafsihi wa li yazaala mutaba faltamis الراحة في التوجه لمن يرم كل ذي توجه من قصد الله الكريم حقق رجاءه فعجله له وحقق سنجاكو خنكو كيبكو خم دا دجمال يالله سبحانه وتعالى دانا نقلو كدانا نقل ايدم دانا نقلو دانا نقل آه، يكور يك كيبكو خم دا جبنا آه، دجمال لنا يالله كوكو دانا سنل بخم دانا سنل te kum benn dana ko sonal wax ju am solo yooyu nag ak ndigal yi yeneen yu demee noonu la ko sëñ bi dénk moo tax boroom daal moo ki fonkoon jaamu yàlla mosu koo wayfal dund na lu xaw a jege juróom-ñett fukki at ay julleeg waaye waaye tiim ci moom mosu koo def ñaari yoon te bu bi mu amee ndox fayaat na ko xam nga sëñ Tuubaa benn yoon la ma sa tiim ci dundam moom dégg nga mooy te boobu mooy mooy bi war a tim rek moom mooy ba ñuy joxe aw tur sëñ Masamba ginnaaw moom la am sëriñ boobee moom ñu naan ñëpp tim boobu doole na beneen yoon maanaam waaye bu ci ne ñoom ñëpp ba ñu amee ndox dañ ko fay te li gën li fi nga xamee ne loola xëy na noonu ñii ñun ñi nga xam ne ndox mi dana yomb rek feneen di seet ngeen gis ñuy tiim ak tiimaat am ñoom sax jënd fa defatuñ waaye da gis maanaam dëkk bii nii ba fi ne. di digle ne waxuma la moom waaye jàkka ji rek dawul nangu ko fi dugg te te te njàpp booba dëkk bi ndox dafay amul nit tëdd na fii ci dëkk bi ci luppi layam di di jàmbatu mar damaa mar damaa mar ba sedd buy dee ndax am ni luñ ko wax war fi daañu wax fi ne ba daru musi naan ci xotti xaal waykat ko wax kon maanaam ndox dafay amutoon mu farloo noonu nag ci maanaam moom du julli te jàppul te jàkkam ji itam ku fi dugg da jàpp am na teeloon bu ñu wax sëñ Mor Anta Sine si Abdou moo ko nettali sëñ Bass Anta Ñaŋ sëñ indi na ko ci Cheikh Ibrahima fi yow mi xaarida téeréem boobu di téere bu am solo dañu def lu ëpp ci dundu borom dara moo wax ne sëñ Abdou Khoudoss nettali na ko ne sëñ Mor Anta Sine moom doon teelu borom dara moo yàlla dogal moo amoon ak wéradi gu ko dab lay góom yoo xam daa tax mënta jàpp ndax bu jàppee xëy na day yeex a te loolu ci sariya may nañ la nga waaye borom door ba ko yëgee da ko ne ko loolu mbirum seytaan la maanaam la tee jàpp del jàpp nee na mu tàmbali jàpp yàlla def ci taw ba mu tàmbali jàpp rek la mbir moo wér kon noonu ndax suñ ci waa gis nga moom moom it noonu la def suñu daane ay taab ak i góom daana ko sama ci yaram suñ ci waa ku a natt la rawatina jëmmam ji waaye dawut jàmbat nee waaye boo ko masaa tiim nee na mu yor kaab nii di ko di ko jàpp bu koy bomb da jàpp ne lii daa soxal ci ci yax bi da koy bombal deret bi di turu waaye muy bomb rek ndax moom dinaa wax ne moom li ma yàlla digal muy jàpp moom dinaa ko def man la sëñ Tuubaa noonu yi moo toroy gis nga sëñ Tuubaa bi mu bi mu jàngale tiim te tëdd saxaat ko jaaxal mooy daa te yem mu man bàyyil tiim bul tiim maanaam murid yow lii xëy na ko def yow moo tax loolu nekk la borom dal moo nga mos buñ seetloo itam bi ñu nekk fii ci dëkk bi itam euh, jàkka ji moo ko daa gis moo daa nekk imaam bi te mosula fay faat maanaam mos ci dundam yooyu sew sewaan la waaye xaar ba waxtu jàll muy fayaat ak julli de julli fu mu la koy def mosula itam juum ci biir julli gi ñu di ko gàggante loolu mosuñu ko seetlu moo tax gis suñ ko wax ne mosuñu ko du juum du fàtte mosul mosul mosul a jàllale maanaam julli ba mu yàgg muy jaxase ak di gunge ak di dem ak dikk ni ko lijjanti loolu mosul woon ndax la ko war a mooy dara da ko daa jox yitte da ko teewlu ak pësté boo xam ni maanaam day tax li def waxtu wu ne xelamam ci. beneen bi alxuraan yi noonu ko waxoon ne ko waaw mu xam ne mi day wax ne Sëñ moo ko digaloon ci njëlbeen ne ko yett ngi nii yoo xam ne boo ci saxee di nga am lu ñëpp gis fii ci àdduna di nga am lu ñëpp gis àllaaxira la ci jëkk mooy foo jóge ñu ne ci tool ya foo jëm ñu ne ci jàkka ja lu ne loxo nga ne nga ne nga ne kaamilu alxuraan moo tax alxuraan loolu ko fang alxuraan bi sëb ñaar fukki isib la bi bokkut ak kaamil bi neefi laa nag kaamil boxum la wax na ne am na sax xëy bi suñu xaarim nii docteur wax ne euh, ñetti kaamil la am na beneen boo xam ne bu ma ci jotaay bi ko yor ko jàng rek mu dem moom nga xam ne bokkut ak waqaf yi waqaf yi moo doon sulus alxuraan mooy ñaar fukki isib par bés suñ ko ko digaloon sëñ bi bind na ko lettre boo xam dana ko alxuraan joxaat na joxaat naa la ci ndigalul jàng ko xam na lépp usul dañ ko am suñ borom dara moti suñ ko wérdu yu bari wérdu xaadir ak wérdu saabir ak wérdu tijaan ak wérdu eh, murid yeeg yëpp yëpp waaye teewul da koo joxoon alxuraan yi ndigal boom jàngale itam noonu la ko am na jamono da ko wax ne ko bàyyi lépp tey def tey jàngale rek xam-xam maanaam boo defee farate ak naafile yi wéyal ci jàng rek maanaam tey bi noonu la def mooy lépp lu muy def rek day fekk muy liggéeyu sëriñ bi du def lu mu amul defal sëñ Tuubaa kon non la dem guddi gi da ko la dundal daanaka guddi gi mom bokkul ci la na guddi ba fajar da ko daa dundal bokk na ci li Cheikh ibrahim do na Nasaawi wax ne hawa fadl tilawati ma qiyaami ila fadl jihad ma ribaati boole na ay ay taw cheikh te moy amna ngeen ngëneelul sax di jàng alquran ànd ak tadabbur boole ci dara jàng itam waaye am na ngëneelu di xiyaamu léegi mooy saxal guddi gu ne mu mu dundal ko njàngum alxuraanam dara ko war a seetantal du njàng mu gaaw mi wax na ne bis Cheikh Abdou Khoudoss moo ko daa nett li wax ne bu ma saa dem yaram day dal ko sëñ Balla Corop waaye am at moo xam ne sëñ bi da ko wax ne ko sëñ Tuubaa ko wax ne ko dalal ci kër gi wutal ko fa ak caasi dal te en biir kër fa dal moom waaye boobu sëñ bi da ko wax nag na dal si ndax naa ngay nekk nekk ko am day ko am ku mën a fàttaliku sëñ Mouraw ba mii sëñ Moussa doomam ak ñëpp jabar yëpp ñettal na leen ne leen keroog ba fa kookee ñëwaatee ka nga xam ne moo sabab sëñ bi dem ci géej nga xam ne moo moo ko jaxtee ci géej gi te sëñ Fall nettali ko xam ngeen tur bi kookee keroog ba mu fa ñëwee te fekk moo te suñ moom da wax borom moo te yéen ñaar bu leen gis ñoom daal mu daal moom boobee la doxee ba ca gaar bi fa lañ ko demee jox ko fotam sëñ moo nag sëñ bi da ko fa téye bu pare nganale waaja nag waaye lépp luñ ko rew ci ngan da koy jox sëñ sëñ Modou sëñ Modou Ball ne ko dama jox ko bu ñëwee da lu mu wax nee na nuyoo moom ay yoon it ne ko kii doomu ci àll nuyoo la moom mais eh, ci maanaam lam koy jox mu nekk añam da koy jox da koy jox mu yóbbu yaakaar naa fanweeri dërëm mu ngudd la guddi gi tam mu joxaat ko ne ko ne ko lii mooy ab reeram ba mu ñibbi tam mu jox ko ne ko lii mooy ab mooy mooy mooy lu muy delloo mais nag sëñ ko ko jébalee ci saxaar gi mu def sëñ bi la ko laaj mu wax ba nga ko jaay mu ne ko moom de xanaa su dañ waxaat ne sëñ Tuubaa daal moo baax rek xanaa xamul ne ñun ne ko sëñ sëñ Babu Joob ne ko xam nga luy réquisition mooy tubaab yi ku ñu liggéey doo ba gërëm da dañ la jox kayit xam ne boo duggee ci saxaar gi doo maanaam doo doo doo doo doo doo paas ne ko nag xam nga li tax ma leen yore mooma mooy maag sa baay dañ ko àndoon di taxawal diine moom ñu mu di ko màbb moo tax mo mo muy def ñaari baat ñett mu ne ko nuyoo la kii doomu Cerno suñ mënu saa yi da ko moom ndax booba ñëpp dañoo moom da suñ mënu saa ak ak suñ mënoo balam moom ak ak kooku suñ loolu sa yitte yoo xam ne xëy na jërut àgg waaye dama bëgg wax mooy suñ tubaab doon ko am suñ tubaab maanaam jikko yi ñu xam ci rek muy gore loolu moo ci ëpp loolu yëpp waaw noonu la ko yàlla bindoon kon lu ko borom daal moo tax yàlla defal na ko taw feex yi lam doon liggéey yàlla rek a tax ay sëriñ bi itam wax dëgg yàlla xottewut benn yoon maanaam maanaam lam na gërëm na ko bind na ko leetar boo xam ne mi ngi si muy mbindum Sëriñ Tuubaa am ko mu wax ko te ne eh, mata a aynuka ala hadi alxuruf fa tayaqan bi anna katibaha raadin an karidan la suqta baadahu abadan maanaam boo gisee xaraf yi mu bind xamal ne yow de gërëm naa la ngërëm loo xam ne maanaam eh, mer dootu ci topp ilaa yu di ne ko na sedd na sa xel dal te xam ne ku dul ku commencé yow rek dana la ñee ci ci ci loolu ngërëm loolu ne itam na nga xam ne loolu ci yàlla la bàyyi ko du ci man la la jóge borom dara ma bokk na ci ak jaam yàlla li ci lu ci am solo loo xam ne dañ koy fàtte mooy musiba mooy yàlla mosul mooy yàlla ci dundam mooy yàlla yu sew sewaan yi ñu def sax muy jëw nga xam ne moom daanaka kenn mënu ko moytu ci nit day gis nit ku baax waaye nit ñi dañuy ñëw ba di ko jëwloo sëñ Moussa Ka wax ne moom du tudd nit ku mu newul du boddi du jëw du jëwloo ña fa moom du ngàdde noonu du suñu daa wax maanaam boo nekkee si moom du la jëwloo du nong it ngay jëw keneen fii waaw noonu la la la meloon moo tax sëñ sëñ Ibrahima Jël Musari wax ne fatan lam yaxsi amrallaahi yawman فتم لم فتم لم يعفي امر الله يوما ولم يسلك سوى قبل سلال الا إيه رجل المساري لا لا والله لا لا لا لا لا لا سن الشيخ محمد مصطفى ميتم آه، الكريم خم دفنا قصيده وام سنه برم دار المات وكنا تلم جوخ موي يرشد للتقوى المريد وللهدى وللعلم وال والعرفان والدرس والخطي انا مريد بنيو في موم لي ديف سي يوم موي دالاي sóob ci yoonu ragal yàlla da jubbanti def ci yow ak ragal yàlla def ci yow ak njub ak xam xam-xam nag boole ci ak saxal la ci ngay bind ak jàng rek daanaka loolu moom daanaka moo doon kii mu doon moo tax suñu musaaka wax na ko ne wax na ne moom mosula sopp adduna ak dagam ya seytaane bànneex ak bakkan mbokkam ya wax ne itam xolam bu jébbalu ga ak tabeem ga ak euh, dëggu gaag njàmbaar ga ak yaaram ga ak sàmm gaag maandu ga ak doyloom ga muñam ga ak wakkirlu gaag wóolam ga yooyu ay melo la yoo xam ne doon ci moom wax na itam ne ak du ko teree ibaada te solo maanaam lu lu mu jaxasoo jaxasoo nit ñi lu nit ñi bari bari du tee xolam mën a jaam yàlla waaw moom dafa mën jaam yàlla jël xam nga ibaada mooy ak jaam yàlla foo boo xaalu xol lay doon boo xam ne bukkut ak ibaada ubodiya nag mooy mbir mi mooy li ngay jëf lépp nga yëg ne lii maanaam ci yàlla la ko xewale rek tawfeex ko mu jaare ci yow lépp lu amee nga xam ne yàlla ko dogal lépp lu kër kër yi ngay def itam ci wut alal nga xam ne yow sa sa sa jëfi bopp muyu la li ay sabab la yoo xam ne nga koy def waaye li sabab yi jur yàlla koy sàkk te nam ko neexee moo koy créé loolu daanaka ma gàtt ma ubodiya moom na borom dara moo tax ma nañ loolu la daan dund gis nañ buñ ko tàggee nit day wax ne alhamdulillah suñ ko ne diw am na doom it gane na àdduna mu ne alhamdulillah dégg nga fii nii àll bi ñeent fukki kilomètre la tooloo la ceerno tooloo maa ko wër maanaam quarante kilomètre carré moo ay toolam te daanaka di gépp dañ ko daa bay moom waaye bu ci ma masa kii bañ xewli boo xewli ci dañ ci xewlu da ce day wax ne alhamdulillahi alladi jaalani ashtahi wa ajidu fa kam min mustahin la yajidu wa kam min waajidin la ishtahi ngi sant yàlla ñaan moo def moo def ma bëgg a lekk ba pare am lu ma lekk ndax bari na ñoo xam ne bëgg nañoo xewlu te amuñu lu lekk am na ñoo xam ne am nañ lu ñu xewloo waaye mënuñu ko xewloo ndax masal am na appétit wala wala aaya nañ leen lekk yi masala moo tax da ci daa sant yàlla xëy mu sax xewlu la ko wax bi ci wérdeen bi mujj cheikh mahmoudan mbakke yaakaar naa ci genn wérdeen rek la wax waaye maa jàpp ne ci wérdu gu mujj gi rek cheikh mahmoudan doomam bu baax ma dégg na muy wax ay bayit wax ne aya rahmanu ya allah aya man jalla naxshaahu fakun awni ala daa'in bara jismi wa abnahu yow rahman yow allah yow mi nga xam ne yow rek laa ragal na nga ma dimbali ci ci wéradi gi nga xam ne mu ngi yett sama jëmm ji ci métit ilahi la tuaxirna bi zambin xad janaynaahu عبيدا ذا جوا وارحم له فوق خطاياه bu lu jàpp mukk bakkaar yi nga xam ne koy def waaw ak tooñ yi ñuy def yëpp bu ñu ko jàpp sas njaam la moo bay dan bu bari ay njàqaree ki mbir waaye maa ngi sàkk nga yërëm ma te jégal ma bakkaar yëpp kasiiran yastaki xawban ilay tasma sikayaahu maanaam yàgg naa laa jàmbat bakkaar yi yi xanaa jotul nag tey nga nga nga jégal ma yëpp te loolu mooy borom daal moo ci mu jëm la ko doon wax te mooy borom daal mosuma sëñ bi gërëm nga xam ne mos sama yàlla jaamu yàlla gi li mu def lépp loolu mos a naagu ak wóoru itam mos mosu ko def te ragal yàlla gi itam ak fam teg yàlla du ko mukk kooku mooy gàttal gi sëñ Tuubaa seeral na ko ne moom ayyuhal mag boo ko bi xubbinaa mooy yow bëgg ma paaka dañ la cee ren ak yeneen ak yeneen du sos murit du di laaj hidaaya du jën di mooy borom inaaya maanaam noonu doon